pas du pour indi yeneen fee fane dem yëngi politique la def teen nag bi mu yaakaar da koy taraayi day konkiraa sa galerie pas du pour indi yeneen fee fane dem yëngi politique la def teen nag bi mu yaakaar moo koy taraayi day konkiraa sa galerie du pour du moom kese ndax am na concurrent waaju du ko may dara tax mbir mi danse galerie kos lay laal te ci cuus may lay pas de danse am na yaa rabbana ahonsu billaahi ñii siisu ñii jiite too wàcc jox la siis bi dat ba jeex ngay fa nongu yàlla ñu yàlla musal ci baaraamay wóoroog baaraamay. yàlla na fi jóge yàlla na ngeen fi jóge jàmm. yéen yàlla ban xaaral mi. bonjour. nga réew mi. bonjour réew mu. bon père ça va. eh ici c'est ñaful ni ici c'est eh ñaful ni. c'est la réunion de ñaxu wala ou pas. Eh, lii ngay dindi ba pare ñu so. Mais mon père, il y a beaucoup de chiens ici. Je vous ai mis. Je dis ça pourquoi C'est quoi Problème, quand vous avez un fille. Mais mon père, c'est toi Nyokobay ou pas C'est moi Nyokobay. Nyokobay. C'est toi Nyokobay. C'est Nyokobay. Voilà, c'est Nyokobay. Nyokobay, ben ñoo xam ne bul joxe gul loxo. Jet, jet, jet. Di di di di di di sa lii nii. Xam naa problème ne moom bu fekkee juddoo wul seen dëkk it fa lañ ko génnee. lan mooy sa problème. je dis juste une instant mais toi c'est toi là c'est toi la responsable de la maison ou pas. fii responsable de la maison nekkul man dégg nga. mais si y a beaucoup de personnes mais ça ça me dérange je ne connais pas ça. nga kat xoolal. say duul yow. xama xama xama lan mooy. attends attends non mais c'est pas quoi. je sais très bien katu xoolam. katu xoolam c'est du c'est. voilà merci. mais pourquoi tu tu dis ça man déggu olof man déggu olof. yow déggu olof yow pas sa baaxee réew. xam nga la ba yow réew. merci jërëjëf xam nga naar bu soo de wax olof. yàgg di maintenant qu'est-ce que qu'est-ce que tu vous voulez. et toi là. qu'est-ce que Il me semble. Ah, tu voulais, il me semble. Oui. Mais, mais tu, tu, tu sais, qu'est-ce quoi le problème Ici, ici, c'est pas ma maison. C'est la maison de... Tu, tu pas Doupout Mais Doupout, je pas Doupout. Ouais, ouais, Les tu... enfants me disent, c'est la responsable de la merci. maison. Qui est pas Doupout. Euh, dañ koo a été à la pression. elle le responsable était vraiment dégalé. elle a été à la pression. pas Doupout. parce que il est en de parler dans. les beaucoup il parle politique non wax yow xam nga war nga ne day faru. on est le pote le pote. le pote il il il il est moo moo. de l'enfance. ah le pote ça oui. loolu la tey dégg wolof ya. parce que du pote du pote il n'est pas sérieux. Ah, il n'est pas sérieux c'est lui qui qui moom moo war a jàngal olof jàngalu ma olof. Eh, waay loo ci teg waxi wolof de xanaa lii ay pël la. non man man man man xam olof. merci olof merci. mais yow yow kan nga xoolam yow kan nga xoolam ma xool loolu loolu baaxul. léegi xam nga lan la ñu def. oui borom kër ma nga kaso ñaari parti politique yi nekk ci dëkk bi la far genn parti ga di ca wax di ca wax ba gaaw ñu ko yóot tabal kaso. mais du pour il n'est pas il il est il est un peu un peu terrible. waaw ah, si léegi léegi maintenant. oui maintenant tu peux un néeg mais ce ne le pas d'abord ce te laisse te rentre te rentre tes bagages mais si je vais l'appeler de foot tu m'as dit. Eh, oui après eh, après. non ah, yow ku nekk kaso nii lañ koy woowee. mais yow yow lan la. mais tey très compliqué. yow yow yaay xuuñu xëdd yow. c' mooy nit ku mën a fen. ah. locataire a dul lu ñorul mu wax dee ko day jaaral. léegi euh, mu du pot. pare nga oui. te ko oh! mais. du ko du ko suba teel di mos bi ci noon yi njiitu noon yi ñëw kii moo njiitu noon yi kii moo njiitu noon yi kii moo njiitu noon yi faama li faama jooy jikkoy di danaa ko jël danaa jooy de kat ko xoolal foofu foofu